RTV Dakar yéen yi aboneegul gul leen gaaw bu leen fàtte bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jët suñuy vidéo jàngeen jëf. ah lu cay sa yoon ah mbokkam ma day kooku lu cay sa yoon diw njabootam ba day lu cay sa yoon waxal garab yi géej yi dex yi gàncax yi. ganaar yi wund yi ba ba ñuy jeex waaw waaw bàyyi jàmbur yi kooku moo gën waaye itam rek sunu mbooloo tey mara day tali danaa leen faral di wax ni de lu nit fonk fonk boroom kër gi bu yàggee ci noonu yàpp ko waaw bu yàggee ci noonu rekk yàpp ko ndax sunu waxin ak sunu jëfin rek ndax ku jóge ca àll ca Côte d'Ivoire ni damay ziyaare ji Tiwaawan tañax tañax tañax tañax tañax tañax tañax ba agsi ni ana kër ga ñu ne kër gaa nge ngay yoot ngir ragal ñëw sukke ca buntu kër ga yow fekk ñi ci ëtt ba ku ne di tapp sa morom pasu di jëw na mu leen neexe na def te yaakaar dafay tas te yaakaar dafay tas ndax di ne ni kër gi tëb ni ma ko dégge woon du nii waaw fokk nga wax ko waaw ah, te fekk borom kër gi moom deful dara nun rekk noo def waaw nun rekk noo def tabarkalla tabarkalla lu mat di bàyyi xel la ndax itam mbooloo Haruna Rachid la mu waxoon la mu waxoon wasiiram ba ni ko wala la abdul malikum nu marwan la waxoon wasiram ba ni ko digal ma mu ni ko wattul ma mbooloo mu ñu yarul seetal loolu mu ni ko digal ma mu ni ko wattul ma mbooloo mu ñu yarul musiba mu nekk ngi ci daana kon nag lu di ko dénk sunu bopp di leen ko dénk ndax itam lu jafe jafe jafe jafe la léegi laa ciy xuloog waa waa Tiwaawan bi ñu agsee léegi waaw léegi laa ciy xuloog waa Tiwaawan ci wàllu sarax saraxu dëkk ma ni nañu ko bàyyi nañu ko bàyyi saraxu dëkk nañu ko bàyyi nañu jàng lixlaas ñaanal ñu dem ah waaye bu dee dëj bu ne ñu ko ceytu musiba am musiba am musiba am ndax li Cheikh Al waxoon ca Ndakaaru ci sunu ndey soxna roq yendooy ba mu demee te ñu indi nag indi xar mu ni kenn du rey bakkan ngir bakkan rekk moom xam xam na la mu wax waaw waaw waaw waaw kenn du rey bakkan ngir bakkan waaw benn werante nekku te yépp yeete rek la waaw yeete rek yow kay boo bëggee jënd xar sax bàyyil ba bés bi paase rek waaye buñ ko xasee def aada jeex na jeex na fitna lay doon lépp lu nar a nekk ñaan teewlu ko ànd ak sa sago dootul mën nekk ndax xëlëb xëlëb ju bare rek xëlëb xëlëb xëlëb xëlëb xëlëb rek nag waaw tabarkal la tabarkal la ah fitna bu la yàlla tegul fitna bu la yàlla tegul xel mu rafet tegu la ko waaw fitna bu la yàlla tegul xel mu rafet tegu la ko mën de lii jaaxal na mu lu kenn xamul lan la te nun nag noo ci raw te duñu bàyyiwul nit ñi duñu bàyyi mukk di tere nit ñi loo bàyyiwul ñoom it ñu lànk waaw dañuy lànk benn werante nekku ci daa itam boo nee bàyyi leen ngénte te bu ñu ñëwee sa ngénte fekk mu mel na mara day tali ah ñu nit kii def ñuy fonto ah boo ne bàyyi leen ciy kii bu ñëwee si kii te fekk mu mel ni mara day tali ah boo ne wattu leen eh, dëj yi bu ñu ñëwee fekk sa dëj mara day tali mel ni ciy ah ñoom it ñu ni kii daf ñuy fonto ah ba moo tax itam sàkk ci pexe dimbali jigéen ñi parce que jigéen ñi sonn lañu te jigéen coono baaxul ci moom jigéen ñi sonn nañu lool sonn nañu lool réew mu yàlla barkeel bés bu ne fukki ngénte am réew mu yàlla barkeel bés bu ne fukki ceyte am réew mu yàlla barkeel bés bu ne fukki dëj am ah boo bëggee nag ngénte fukki yoon ci bés dëj fukki yoon ci bés ceyte fukki yoon ci bés ki ne jigéen attanu ko ko attanu ko dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ dañ jënd mbubb mu bees boo liggéey nga jënd beneen maye xaalis fecc joxe sonn yii dafa ëpp ah yii dafa ëpp te itam nag loo xam ne yoolu yàlla nekku ci te loolu yoolu yàlla nekku ci benn yoolu yàlla nekku ci su ko defee ñu yërëm jigéen ñi dimbale leen góor moo mën a protéger jigéen su góor ga demee ba mënul protéger jigéen nag na bàyyi boog jigéen ja jéem ko protéger moom moo gën bi ah bàyyi jëkkër ak càmmiñ bu ñu demee ba mënatuñoo protéger seen doom bu jigéen wala seen jabar wala seen jigéen nañu faf tëdd ñooñu ñëw protéger la moo gën way yëf yi dafa metti lool ba mu ëpp te yoonu yàlla nekku ci waaw benn yoonu yàlla nekku ci ba taana kon nag di ci bàyyi xel di bàyyi xel ci sunuy mbooloo di bàyyi xel ci sunuy bokk ndax itam diggante lu mu jege jege dox lu mu jege jege dog ak defaroo ko gën waaw diggante lu mu jége jége dog ak defaroo ko gën ba tax na nu dénk ko sunu bopp dénk leen ko ngeen nekk benn te itam li nu leen doon wax nu fàttali leen ko am na koo xam ni gàggantiku ci mbedd du wàllam soo amee kilifa diine am kilifa àdduna di gàggantiku ci mbedd def nga musiba nit ku baax du gàggantikoo ci mbedd du gàggantikoo ci marché waaw mbir mu ne xam nga ka nga ko séqal bu lëf xewee nga dem ca kooka ni ko na mu deme waaw sama ilimaan naka la deme waaw sama ilimaan naka la mbir mi deme moo la yilif ci julle xam na lu mu la cay wax sama sëriñ naka la demee moo la jox wérd xam na lu wér di laaj waaw sama sëriñ naka la demee moo la dalal saqaalu seexu xam na lu mu lay wax ci téere bi waaw sama préfet sama sous préfet sama adjoint préfet sama député ku ci ne la nga séq moom mën na ci ubbi sa bopp ba dootoo ci nekk dof way dégg wàmbe di muy soow ngay soow di soow di soow di soow di soow bee tabarkal la tabarkal la loolu ku am xel doo ko def na la jaral sol sa dàll diisoo ka nga war a diisool waaw ndax kenn ku ne am na fu mu la mën féete kenn ku ne am na fu mu la mën féete bu dee autorité religieuse bi am na fu mu la mën féeti bu dee autorité administrative bi am na fu mu la mën a féeti lu la bëgg jaaxal rek séq koog ñoom daañ ci ubbi sa bopp ba mu yaatu waaye ci mbedd mi di werante di werante di werante dama nekk ci wetu benn euh, euh, atelier bu ñuy liggéeyee maa ngi toog rek di leen déglu ñu nga ñu nga may wutal man sama yam ci njàng waaw waaw waaw wutal keneen fa mu yem ci njàng waaw te te te te man xëccoowuma ñoom seen si ba ñu doon sii waaw maa ngi leen di déglu rek laajuma leen ku ci dàq banq laajuma leen ku ci dàq chaise RTV Dakar yéen ñi aboné gul leen gaaw bu leen fàtte bés close notification bi ndax muy tax ngeen di jët sunuy vidéo jàngeen ngeen jëf